jërë ngeen jëf mbokki internet yi baaxoo déglu ak di seetaan seen télé Teuf Connection tey nag ñu ngi ñëw fii ci seen émission whatsapp seen troisième numéro ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci hausse des prix fii ci Sénégal mbokk yu bëri interpellé na ci ngir ñu fas yéene cee def benn jàngat kon ci loolu moo nekk troisième numéro bi ñu fas yéene waxtaan ak yéen. jërë ngeen jëf kon nag euh, ñu fas yéene tàbbi ci waxtaan bi comme nañ ko waxee tout di wax ci ni jëm ci yokkute prix yi jëm ci wàllu dund gi ak yeneen yu li ci ëpp nag tey ñu fa yéene pointé suñu waxtaan ci li jëm ci li nga xam ni mooy dund gi muy yokk ko jéggi-jéggi dayo lool askan bi yëpp itam di ci wax ak di ci jooytu tey nag remarque bi ci pour vraiment loo xam ni pour bi yëpp waxandoo ko mu jëm ci augmentation des prix bi ci njëkk ci li ñu mëna a joxe ci misaal mën nañ wax ni melni ki soplé ci 400 dem ci 500 li melni ki sac parfumé 50 kg bi nga xamni dal na jar parfois sax ba 15000 dem na ba 20500 buñ jëlé ci biton litre diwlin bi nga xamni mi ngi daan jar euh, vraiment parfois daan ko jëndé 16000 15000. tey jii ñu ngi toll ci vingt deux mille cinq cent francs loolu lépp tamit di ay jàngat yu doy doy waar que dem ci butéelu litre diwlin bi nga xam ne moo nekk cinq litres daan jar quatre cent jàpp cinq tey ñu ngi ci sept mille francs loolu nag di metti lool lool ci askan bi ba tax ñu fas yéene ñëw indi ci ay waxtaan muy jàngat bi ànd ak li nga xam ne muy remarque ak conséquence yi remarque bi nag mooy seetlu nañ ni fépp la maase amandoo benn bi mooy ñëpp maase nañ di ko jooy ñëpp maase nañ di ko jàmbat ñaareel bi mooy ñëpp ñi ngi wax aussi ana lu war a waral tolluwaay ci réew mi nga xam ni Sénégal ku ne xam na richesse yi fi am kon liñ ci jëkk mooy niñ ko bëggee séddalee ci ñetti poñ waxtaan ci remarque li ñu seetlu li ñu seetlu nag naka la ko nit ñi di dundee muy conséquences yi ensuite lan moo waral tolluwaay bi ni mel suñu jeexalee nag daañu apporter li nga xam ne moom mooy ay solution mooy yan yoon lañu jàpp ne suñ ci jaaroon kañ na danañ mën a indi saafara ci situation bi ni mel donc jàngat bi ci njëkk mooy Sénégal metti na ci ni ko nit ñi waxee ci vraiment anam yépp képp ku dëkk ci réew bi itam di jàngat tolluwaayu sénégalais yi di nga xam ni vraiment père de famille sonn nañ gàcce ngalaama ñoom waaye aussi yaay booy yi nga xam ni dañuy nàmp seeni panier di dem ci marché bi chaque jour ñoom aussi sonn nañu pratiquement lépp lu fa daan am la fa jàppandi as néew prix bi boo si jël su multiplié wul par deux aussi yokk na ci daanaka xaajam wa ilaa mu yokk ci lu jege xaajam beneen bi itam mu nekk loo xamante ni si lay yokk as néew sax léeg-léeg pour nga gis ko mën na jafe lu mel ni ki gaz tay jii ñu ci wax mu jafe lool ci yenn ci barab yi ci Dakar ak yu ni kon jàngat bi mooy sénégal yi ñu ngi koy dund ci ban anam ci anam bu métti métti métti léegi nag ana lu war a war a lool mooy nekk suñu deuxième point ci li nga xam ni danañ ko indi ci jàngat conséquence yi nag mooy dund ku métti rek la ñu seetlu ci ni ko sénégalais yi di dundee deuxièmement mooy vraiment lépp loo xam ni daan nga ko séntu ci li nit ñi daa def ci seen man-man wàññiku na conséquences yi mooy loolu nga xamante ni si vraiment sénégalais yi ñu ngi koy euh, daan dund di ko jànkonteel beneen bi itam lu nit waroon def ci wàll wér-gu-yaramam ak ci yeneen fànn da koy mujj cof cofaat ngir mën a jotale li nga xam ne mooy jëm ci dund gi jëm ci wàll njaboot ji ak lu kon nag sénégalais yi ci instant bi ñu toll mën nañ wax ni vraiment ñu ngi dund ay tolluwaay yu méttee méttee méttee méttee konte nag su réew mu tollee fii képp ko nga xam ni am na ci ak jàngat war naa xool vraiment état bu ñu toll mu def ci benn analyse pertinente pour que ñu xool ban yoon lañ mën a jaar ba génnee jafe-jafe yi sénégalais yi di dund ñu fexe leen dugal ci yeneen situation yoo xam ne dana nekk situation yu mucc ci ay kon nag constat bi mooy li ñëpp gisandoo dund gi cher na yokk na ci bépp fànn deuxièmement jël nga xam ni sax léeg-léeg lañ ko daan am boo demee ci marché bi jafe la fa trop kon dund gi métti na sénégalais ñi ngi dund dund gu tar ñi ngi sonn sonn gu tar loolu nag nekk loo xam ne mooy constat bi ànd ak vraiment conséquences yi conséquences yi nag gisandoo ngeen ko mooy pratiquement li ñuy wax rek bu sikkim la ko ndawee kenn ku nekk sa sikkimu bopp rek nga tal loolu aussi day indiwaat beneen situation sociale

donc biñu défé ci ay gëstu yu jëm ci walu li waral la OSDP amna ci benn rapport bo xamante ci euh ANSD defoon na ko ci jamono 2008 bo xolé ñom aussi indi nañ ci ab jangat amoon na rapport bo xamni article le 16 novembre 2021 ci benn site buñu wax www.icb.europa.eu HTML ñoom aussi indi nañ ci jangat waye bi ci ëpp doole té ñu mën ko xam muy sénégalais yi ni ko faral di waxee ak ni koy faral di jàngatee muy actuellement bu ñu laajee arti euh, commerçant yu bari dañu wax ni état bi moo yokk taxi yi voilà loolu je suis d'accord ci benn aspect mën nañu wax ni vraiment benn la ci cause yi parce que cause yi bari na loolu suñ nee état bi su yokkee taxi yi taxi yi day impacter sur les prix prix bi impacté waat sur donc le marché de ce fait ki nga xamni ni état bi fay tek ci mom taxe yo xamni day jëlee ci biti rew di duggal kooku su ko état bi tege yenn taxe tala muy fay mu war caa génne loo xamante ni transport bi dina ci dugg na mu koy jëlee port ni mu koy acheminer ci région yi ba ni mu duggee ci biti yi wala jóge ci biti yi nak dem ci kër yi kon foofu c'est un processus donc bo xamni passage bu ci nek dafa am ay frais ay charges yo xamni dina tegu ci commerçant bi nga xamni mom moom koy faire déplacer import de l'exportateur au commerçant bi nga xamni mi ngi nek ci koñ bi donc fofu prix d'accord nañ ni am na ci aspect euh, des taxes bu am doole bo xamni suñu jëlé dara impact teg ko ci taxes mu yokk dañuy d'accord ni euh, day top processus bi donc chaîne lay doon bo xamni fu mu jaar fa ne taxe bi day daal am effet ci loolu kon suñu ñëwé ba ci askan bi nak

da am mburu nga am beurre am meew am chocolat boo si paree nga teg ci café boo jëlee éléments yooyu yëpp du mburu xam moo fu ñu koy defee ne ci senegal blé amul fenn fu ñu koy bay Sénégal wala boog suñu xam-xam yëpp fa te ñu ngi koy gëstu lay defar mburu dañ koy jéggaani muy blé nga jël li nga xamante ni si moom mooy chocolat dañ koy jéggaani nga jël meew. dañ koy jéggaani nga jël sucre kase lañ xam ni am na Sénégal à travers euh, ICS euh, kii CSS te foofu ñun liñ ci jaaxal mooy fii ñu koy defaree ci réewum Sénégal mu ñu jàpp ni waroon na fi gën a yomb réew yi ñu wër ñoom ñi di ko jële fii di ko yóbbu si seeni réew te mu gën faa yombee léegi mu gën a jafee Sénégal loolu kon foofu dangay gis ni état bi aussi war na cee mën a gën a jàppale askan bi comme suñu mënee gis sucre bi génne Sénégal ñu di ko defaree Sénégal nga dem ci yeneen réew yu mel ni kii réew yi ñu gën a jege mu gën faa yombe kon dafa mel ni ki liñ doon wax fële ci prix yi taxe état bi day mel ni feeñaat na fii kon ci euh, sucre bi donc ab jàngat la boo xam ni suñ ko posé ci biir taxe yi dañ naan ah kon Sénégal vraiment kon jéggi su fekkee ni état bi mën na cee indi dimbali dana jàppale askan bi ba cause boobu nga xam ne mooy cause du taxe yi mën a wàññiku mais cause beneen bi ñu waxoon muy li ñuy lekk lu ëpp ci li ñuy consommer dañ koy jéggaani loolu aussi cause la mooy buñ demee ci añ ceeb la ñu xam léegi-léegi bu ñu xorom xorom fi lañ koy amee mais boo génnee ceeb yéen di koy composé diwlin bi diwlin bi ñu xamoon mooy diwlinu gerte lu ëpp ci diw li ñuy di consommer léegi nekkatul diw ñu gerte dañ koy dañ koy dañ koy jéggaani te li ci gën a doy waar kenn xamul sax liy composé diw li yooyu ñuy consommer kenn xamul kon soo jëlee añ bi lii wër añ bi li koy composé lépp dañ koy jëlee ci bitim réew loolu benn cause la boo xam ni cause bu bu bu bu la waaye cause la boo xam ni bokk na ci li tax sénégalais yi sonn loolu ci dund bi ñu dund nga dem ci reer nit ñett rek la soxla bu bu juddoo. na wér na lekk lekk bu baax su loolu lépp amee nag mu am sécurité bu wér sécurité boobu nag ci la ñuy remercier armée sénégalaise bi yépp muy ñuy jàmbaar ñoo xam ni seen taxawaay ci réew mi ku ne xam na ko kon foofu peut-être beneen émission di dinañ ci indi benn numéro jagleel ko sécurité sénégalaise mais puisque tey ñu ngi wax ci denrées yi ak augmentation yi kon jàngat bi ñu ci am cause yooyu moom mooy gën a fes mooy bi njëkk mooy tax yi métti na lool état bi ci mën a jàpp na si jàpp beneen bi mooy ñun dañoo seetlu ni mooy balance commerciale bi xam ne dafa déficitaire li ëpp ci li ñuy consommé dafa jugee petit réew te lolu jugee petit réew puisque dépendre ci ñun kon lu ca yok rek lolu day daldi di impacté waat ci yi nga xam ñu ñokoy koy consommé mu bokk ci li nga xam ni daldi di yokkuwaat ci suñu dund kon ci ñaari aspect yu gën fess yi li nga xam ni moom lañ japp ni moy cause yi inshallah ci ñaar yooyu dañuy sukkandiku pour mën rapporter waat ay solution ci li nga xam ne sénégalais ñu ngi koy kon troisième point bi muy tënku ci solution solution yi bu ñu ko xoolee comme nous l'avons ko tout à l'heure mooy taxi maintenant. metti na état mënut a ñàkk taxe parce que ci taxi il est alimenté donc le budget national L'autre aussi il faut que ñu xam mais pour que solution mën a am ci côté taxi. yi li war a taxe mën nañ ko wax am ci loo xam état nit ay nit ay ay nit rek ñooy exporté muy secteur privé dugal ci réew mi pour ñoom aussi ay doomi réew mi leen pour jàpp ci réew mi koom-koomu réew mi avancement réew mais li nga xam ni intérêt de tous la li nga xam ni état bi daf ko dañu jàpp ni daf ci war a jàpp warul nekk loo xam ni daf koy bàyyi rek ci loxoy askan bi mais mun dugal suñu loxo ba nga xamante ni si suñ nee wàññi leen ñi bañ a wàññi état pourquoi pas mu créer ay boutique mu créé ay am na ci boutique damay bañ a tudd ay boutique parce que day mel ne da nga leen di defal promotion am na si boutique yoo xam ni jamono yi sénégalais doon nañ jug di ko xeex ndax dañ ni ci biti réew lañ jóge ñoo installé wu fi mais pourquoi pas état Sénégal mënut a créer ay boutique boppam yoo xam ni fa ñuy jëlee exportation état Sénégal si bopp sax pourquoi mënul jël responsabilité di exporter boppam di fixer boppam ay prix di ko placer ci ay régions.

peut-être pour sax xañ na euh, peut-être c'est un peu dañ ko dafa c'est trop libéral dañ ko dee donc loolu dañ ko libéré ba mu kii mën nañ ko sax bàyyi mais ceeb diw ak yi nga xamante ni si ce sont les denrées de première nécessité te état mën na ko jël en charge mais pourquoi pas état au lieu ñeneen di ko exporter mën na bàyyi ñoom ñuy kon ne di exporter seen teranga moo ci mais état moom aussi à la place nay nay di dugal

état bi ñu ay responsabilité tàmm li di jël ay bis boppam di vraiment légui gis nga ci donc xuloo yu bari yeeg jàppante yu bari yi daan am bu peut-être wàññi ko bon secteur transport nag doomu Sénégalais ñoo ci ne ñoom war na leen jappalé mais dafa am fo xam mo daf sensible moy askan bi dañoo sonn dund gi métti na ci Sénégalais kon li ñu soxla muy dund gi nga xam ne tax Sénégalais yi nek stabilité état jël ci ay responsabilité yu ma sëkk yoo xamante ni si ay nit ko daa def te état mën na ko defal boppam mu jël bu jaree mu ibbi ci ay agence wala mu ci ibbi ci ay service mu jël en charge lépp lu jëm ci dundu askan bi di importer seen bopp seen ceeb di importer seen bopp seen i diw fexe wàññi prix mu nekk prix raisonnable nga xam du am taxe du am dara ngir askan bi vraiment mën ci gis boppam suñu jugee si loolu ñu jëm ci côté poisson jëm yi li nga xamante ni si moom la ñu seet état le fait que avons une licence ñi jël ay bateau yu bare ci somme milliard investir mais pourquoi pas état que licence pourquoi somme toll licence yi mënuñu ko investir si ci ay tronier ay yu organiser société ñu fexe ba mu nekk benn société boo xam ne état moo ko réglé bopp Sénégal yi nekk ci au lieu que ñu jël gaal yu ndaw ñu jël bateau yu mag yooyu nga xam te si état day bàyyi yeneen eh, réew ñëw di ko napp di yóbbu mais mu fexe ba bateau yooyu jugee feneen yeneen réew di ko napp di ñu am ci mais ñun bu la amoon ci bateau yooyu Sénégalais yi ñoom ñooy nappal seen bopp au lieu que ñu koy exporté ñu dimbali Sénégalais ñuy lekk jën yu baax Sénégalais yi gisaguñu bu baax jën yu baax yu ci ëpp Sénégalais yi gisuñu ko. boo waree dee da dem nga laaj ci nappkat yi dinañ na ci wax dara donc loolu aussi beneen problème la boo xam ne état mën na ci indi solution dañu leen koy ñaan yaakaar nañ ni suñ ci defee ay effort yàlla mën na ci indi apport bu bare bare pour terminer na ci dundin bi li ñuy lekk li ñuy naan dañuy ñëw ci bay ak sàmm état mbay mi ak sàmm gi waroon nañu mën a toll toog tey ni ah dëkk sàngam de nangam de ay toolu état la nga jël ay dëkk-dëkk ñu naan lii état koy bay toolu état la mais loolu dafa war a a am wala nga jël ay dëkk-dëkk ay centaines wala de milliers d'hectares ñu aménagé ko def fa benn élevage état protégé ko suñu jàmbaari soldat saa ngi fi am ñoo xam ni boo yokkee seen indemnité yokk seen i salaire wala ñi nga xam ne peut-être ngi ci en formation génn guñ nga affecté leen ci tool yi ni mel ñu créé ay tool pourquoi pas ñi ngi leen di ñaanalaale sax suñu mbokk prisonniers si jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm prisonniers yi ñuy tëj di leen alimenter nañ leen libéré pas de façon kii mais nañ leen génne ñu yóbbu leen si ay tool defar tool yu rafet tool yu mucc ci ay te prisonniers ñu delloo leen seen àq ñuy sangu ba set di jox yére yu baax vraiment yàlla leen yàlla sàmm ñoom parce que ñoom ñëpp ay doomi réew mi lañ ñu dugal leen si ay tool di leen fay di leen jox yére yu set ñu di ko sol defal leen ay tànk yu baax defal leen ay toilettes yu baax. ci ay tool yu mag yoo xam ne mën nañ ko tudd des les champs des des des des ñu xam na lañ ko mën a tuddee yoo xam ne ñoom lañ fay yóbbu au lieu que ñu di leen entassé ci ay salle di leen entassé ci ay néeg loolu lu métti la loolu buñ ci jëloon ay ay tool ay àlli àll dagg ko ay tool yu yu mucc ay fexe ba yenn prisonniers ñu yóbbu leen fa di leen liggéey loolu ndànk bañ leen fitnaal wax dëgg yàlla ndax doomu aadama dafa am àq

les autres pays de de de de l'Occident Nous, nous, Nous, nous nous, nous, nous nous, nous, nous, nous, nous, nous nous, il faut que nous nous, nous, nous, nous, nous nous, nous, nous, nous nous, investir nous, nous nous nous, nous nous, nous, nous nous, insister nous nous nga nous nous Nous nous de façon vraiment stable Nous nous ak nous nous ko nous nous ko nous, nous nous, alléger nous nous, nous, nous dana allégé boo naka ak métit yi nga xam ne sénégalais ñu ngi ko dund ba ñu mën am pays bu stable ci jàmm mais pays bu stable aussi ci ci ci ci koom-koom parce que nit ñi suñu amee koom am daal problème yu bari dana mën a wàññiku loolu mooy analyse sax xalaat bi ñu ci amoon di baal ak ñëpp di leen jox aussi dig daje ci suñu yeneen numéro fii ci seen télé Teuf Connection seen émission whatsapp ki leen koy présenté monsieur Thiam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa